loola taxoon ñu di ko jàmbat lu ma juróomi at ngi ñu daan ko jàmbat jàmbatoon nañ ko ba ay kuréel yu bari dugaloon ci seen loxo ñu bari yitte woon nañ ko waaye suñu borom dogal na man mii dugaloon naa ko sax ci lo ci noppi ma Mandiaye bokkoon na ci ay mébétam waaye musuma ko wax mbay mii bi fi bàyyam jógee ak léegi fan yii nag bi ma ko ko waxaatee la ne ma li may def mooy sama oto bopp bu ma defoon sama oto personnel moom laay jël jox ko suñ tubaa ñu tàmbalee ko liggéey keroog bi ma ko waxee ma daal di koy yëgal ñi nga xam ne maag ñoom ñoo bokkoon di ci dox sant yàlla ne leen kët lañ doon ñaan suñu borom may nañu ko jox nañu appato ba mu ko indee itam jaar ca man sama place Daaru Xuddoos bëgg fa ñëw jullee fii tàkkusaan ba mu génnee dafa tajeeg sëñ Afee mii ne ko oto bii de dama ko fas yéene jox sëñ Tuubaa kado sëñ Afee dalal ñu ca biir waxtaan ak ñun ñu gaaral ko ko ma ko ñun day gisoon nañu ay tur yu bari yu ñuy tuddee jamono bu ñu ko tuddee ville de nangam day mel ni ville ba la bu ñu ko tuddee kor bi bu ko peinturé mu ñuul day nuru day nuru jëfi feneen gis naa ay oto yu ni mel nekk ca Makka dañuy faral di weex te gis naa ne nuru na ne weex ak werte mel na ne day loolu kuréel bu dëppoo ak ak ak ak sëriñ bi la xëy na bu fekkee ne nun li nu sëñ bi jot a jàngale ak li nu yare xam nañ ca dara loola ñu rafetlu woon gisoon naa it ne arab ya xëy na ñu ngi ko daan tudde naqlul mawta wala yu mel noonu waaye daanaka moo yóbbu ko dee rek doo dëppoo wut ak teggin ci sunu mbir moo taxoon ñu tudde ko rek Corbillard Touba daal ciy def wata bu yóbbu way dawlu ci Touba waaye bi ma tëddaatee guddi ba bërki bii une heure ma gisaat ca bayit woo xam ne daa mel ne bu sëñ Tuubaa doon ñaan te mel ne daa dëppoog Cheikh Mouhamadul Muntaxa ndax dinaa mën a wax bayit wa ab lii safinatan bi kullil janna min daaritil minnati yaasal minna loolu kat bu fekkee sëñ Tuubaa da ko doon ñaan mooy gaal goy da jëm àjjana tey déparé daaru minam te sëriñ Tuubaa di Seex Muhammadul Muntaxaa nu jokkoo ak moom soog ko tàmbali waxtaan bi ñun suñu xol sedd na suñu xel dal na sëriñ Seex Mbàkke moom sëriñ baa ngi noonu taalibe bi sëñ Tuubaa moo ko jëbbal Serigne Touba ngir mu liggéeyal Serigne Touba Serigne Afia oto baa ngi noonu taalibib Serigne Touba ko jëbbal Serigne Touba ngir mu liggéeyal Serigne Touba ànd ko ak bokki njabootug Serigne Touba gépp ak taalibi Serigne Touba yëpp fasaale nañ leen bu leen amatuñ ci ak bëgg ak defar nag laajoon ngeen ko loolu lañ leen waxoon Alaaji Mandiaye ànd na maak moom ñu taxawal forage yu mat deux cent millions keroog la fa gëj taxawal nañ jumaa yu mat trente millions suñ amuñu ci yitte bu ko ko sant jongo soxlaa bu ko abbee bu leen ko neexee bu leen ko abal oto bu Sëriñ boo xam ne yéen ñi mu tegal seen loxo yéen ay xool ko koy def nee na saa yu paanee moteur ah sëñ Abdoulaye Mbacke wax kaay waaw ruma wax tax te tudduma sëñ Abdoulaye Mbacke moom sëñ Tuubaa Cheikh bi Mbacke nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci kër gi waaye li ñuy def nii moom lañ ko koy defal waaye oto bi lu mën di paan bu dee pièce la bu soobee yàlla entretien oto bi Babacar nee na engagé na ko lu pièce bu mu paan bu leen ci jëm dara wax leen ko ko bu soobee yàlla dina leen yónnee pièce ba man mii itam ma yëgal ko bokki taalibe yoo xam ne keroog laa leen ko waxoon mooy dépendance gratuite ñoom sëriñ Fallou Niass kuréel bi nu mu tuddati Sëriñ Fallou ah Suklu Salaam ñoom sëriñ Saliou leen ko tudde woon màggal gu jot dañuy dépanner oto yu bari keroog laa leen wax ne jox naa leen entretien bi am nañu mécanicien am nañu tôlier am na nañu électricien am nañu euh, euh, euh, ay gonfleur yoo xam dañuy defar ay panu lépp am nañu ko lu oto bi paan jox leen leen ko danañ ko defar ngay laaj bi si jubaata duñu leen laaj benn dërëm lii nag lu ñuy tàmbalee rek la liggéey baa ngi noonu lii lu tuuti la ci lu bàyyeekoo ci lu bari noo ngi sant yàlla ak yonent bi ak sëñ Tuubaa ndegam am na soxla yàlla dimbale nu ba soxla soo see bàyyeekoo ci taalibeem yi gën a xeebu ci taalibe yi fasaale nañ ci murit yëpp noo ñaan daal ñaanuk sëriñ Tuubaa googee ngeen ñaan ba oto bi loolu yi am ca képp ku oto bi yóbbu mu tabbi àjjana képp ku gunge ku ànd ca gunge ba sa borom jéggal la ku ci tàbbal saw ñaq am texe ak àdduna ak alaxira maa ngi tuub te jéggalu salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi nuyoo bu baax yëg nuyoo bi sax moom la ma taxaa di ko jëmale ci taalibe yëpp waaye di ko tàmbalee ci kuréel bii toog te muy daayira Muxaddamatul Xidma sëñ Afi mi jiite ko ak bokkam yi ñuy liggéeyal sëñ Tuubaa di liggéeyal Seex Muntaxaa ci jumaa ji ak li ko jege lépp ak ci morgo bi ak barab yi ñaari barab yëpp lépp lu jëm ci diine ci dëkk bi sëñ bi di leen ko taxawloo leen ko saytuloo daayira boobu kenn ku ne xam na leen ci liggéey bi leen sëriñ bi di liggéeyloo ci lépp luy toppatoo mbirum diine ci dëkk bi yitte gi ñu ciy def sellal giñ koy sellal ak teg giñ ko teg ca yoon wa waxtu wu ñu toogee ak sëriñ da leen di kañ bu baax léeg-léeg da leen di wax ne yéen di ci pàggute bi sëriñ mi ngeen bokk ndax seen liggéey bi daa mënta ñàkk te xereje gii def ak yitte ji ngeen ji ngeen koy defee luñ leen fàggul la ndax day li sëriñ bi mënta ñàkk ci liggéey bi loolu rek doy na seere kon bu ñu toogaatee tey fii sëñ Babacar Jong mii indi ci liggéey bii sëñ Ahmadou Jong leeral ko léegi te biñ toogee ci jataay bi jottali ko sëriñ bi dafa mel ne kàddu yi sëriñ bi doon wax ba ko ñëpp mënoon dégg du jar doole benn baat xanaa kon dañ koy jottali ngir ñu ko déggul mën koo dégg rek biñ ko xamalee ne ko sëñ Babacar Jong daa indi ak oto boo xam ne da koo def addiya sëriñ Tuubaa teg ko ci sa loxo indi la fii ci Moukhaddamatoul Khidma te man maa ko wax mu indi ko ci yéen ndax bu ko yóbboon ci sëriñ ba it fii lañ koy indiwaat moo tax mu ne ko na ko indi nu daje fi ma jot liil ko sëriñ bi biñ toogee lan ko laa ko gën a jot liwaat sëriñ fii sëñ Babacar da nga dégg na ko yéen ñi dana man dégg ngeen la wax dafa sant sëñ Babacar wax ne sant na ko bu baax rafetlu na taxawaayam démb tey door a ñëw rafetlu na taxawaayam ci nekk waajuram laataa fi waajuram di jógee affaire na njort ci xam ne loole rek lay wéyal waaye kon mi ngi koy xam ne liggéey baa ngi noonu na ci góorgóorlu kem kattanam ndax lii rek mooy li am solo ti mooy li waajuram nekkoon kon na ko wéyal jëmale ko kanam te mi ngi ñaan Sëñ Tuubaa nangu ko te dimbale ko ba man koo gën a wéyal man ko gën a yaatal dañ waxoon ne mi ngi leen koy dénk waa Muxaddamatul Xidma ne ma neel sëñ Afe mu ngi noonu moo bokkam yooyu mu fi nekkal maa ngi leen di dénk oto baay leen gën a dénkaat liggéey bi ñu sàmm saytul ma kon sëñ Afia sëñ bi naan liggéey baa ngi noonu nee na oto baa ngi nii ngeen liggéeyal sëriñ bi delloo ko ci liggéey ba kon loolu li sëñ bi waxoon ko déggutoon mën nañ ko dégg da des nag liggéey baa ngi noonu ni leen sëñ bi doyloo rafetlu ni ngeen koy defee dañuy ñaan su borom dolli leen ci rek ndimbal ci barke sëriñ Touba ba ngeen gën koo mën a saytu mën ko gën koo mën a sàmm gën koo mën a matale ni liggéey bi yittewoo sëriñ bi li yittewoo ko ni sëriñ Touba yittewoo ko noona yàlla leen suñu borom dimbale ba ngeen gën koo mën loolu rek mooy kàddu yi jërëjëf Cheikh ñu ngi lay delloo am nuyoo ci turu sëriñ Afia Bousso mi nga xam ne mooy njiitul daayira Muqaddamatul Xidma di nuyu di ziyaara sëriñ Babacar Jong bi ak sëriñ Ahmadou Jong sëriñ Alaaji Fall Ndoy ak kilifa yi nga xam ne ñoom lañu àndal yëpp di nuyoo boobu nag ak siyaara bi ñuy sàkk ci ñoom ñu tegal ñu ko ci loxo Serigne Abdou Lahad moom Serigne Souhaïbou mi nga xam ne mooy kilifa njabootuk Alxaaji Mandiaye Diong mooy kilifa njabootuk Alxaaji Mandiaye Diong Alxaaji nag ñu taxaw ci tuuti fàttali ko ko ñaanal ko yàlla sunu boroom dolli ko njéggal te dolli ko yërmande ndax ku daan taxawu lislaam la ku daan taxawu liggéeyub Serigne Touba bi la ku liggéeyu yi Tuubaa yitteeloon la ku sonnoon la itam ci jëmmal lislaam ci dëkkub Sëriñ Tuubaa bi bari na fi ay jumaa yoo xam ne defar na ko fi bari na fi ay jàng yoo xam ne defar na ko fi képp ku ko xam ku nekk ci loolu nga ko xam digganteem ak Sëriñ Afee mii ak mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci jumaa ji doonut lu nëbbu lu ñëpp tegoon seen bët la te bëgg gi mu leen bëggoon ak sopp gi mu leen soppoon lépp barab biñ nekk ak liggéey bi ñuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci barab bi moo ko laltaayoon moo tax seen diggante eggoon na fu nekk mm-hmm. kon sëriñ mi ngi sàkku ñu teew ñëpp mm-hmm. ñu fàttaliku ko ci ñaan mm-hmm. ci fatiha ak fukki lixlaas ak benn yéene ko tiyaaba ji bu baax a baax ginnaaw bu loolu jàllee nag sëriñ Babacar dañuy sob suñuy kàddu rek eh, ndax ñun amuñu kàddu kàddu gi sëriñ Tuubaa moo ko moom te sëriñ Tuubaa wax na ba noppi li mu wax mooy eh, gërëm li ak cant yi amoon nga ko ci sa nekk waajur ci sa diggante ak moom te rafet na njort ne ci loolu ngay loolu ngay wëyal loolu rek doy na sëkk sëñ Ahmadu ñu ngi lay yóbbante ci mboolem bokk boo xam ne xelam nekkoon na ci lii ba mu ci doon xalaat te sunu bokk yu baax yii nga xam ne ñoo fi teew yàgg cee dox guddeeg bëccëg ñu gis ñu annoncé ko sonn ci lool ngir mu am seen yéene joojee tey jii tàmbali na fi feeñ te jàpp nañ ne lii jëm kanam ndax ku ne xam ne ne barab bii euh, yàlloo na lii lool te it na ko lool te jaadu na fi itam nag te kenn xamu ko doon lu tax suñu borom denc ko ba nga ni mu di ko door a moom mii nag am na ci fat mu fatlul mutaqaddim ndax yàlla def na ci moom la tàmbalee waaye nag jàpp nañ ne luy law lay doon te luy gën a yaatu lay doon te dana dem ba fépp fu ñu ko fa soxlaa rek mu mën faa taxaw yow nag yow ñu ngi lay ñaanal suñu borom mot li ci sa yéene te defal la ci lu kawe njort liggéey bi nag mi ngi nii ñëpp moom yoon yoonu murit wépp ko moom hmm. waaye waa Touba gépp ko moom hmm. li ko tax a jógit wax ko ko hmm. mooy fu way dawul am ñu war koo jëli ci hôpital ba war koo indi ci waaj ci waajukaay bi jekk na ngir doxi loola ku ñu waajale fii ba noppi itam mu war a jàll te amul lu ko jàllale jekk na ci doxi loola waaye ñu xam ne nag ab tàmbali la waaye doyagul ci tàmbali nag ubbi na buntub xéewal ñeel képp ku bëgg xéewal te yàlla dana ko fay tam ñaari pay dana ko fay amal gi ko amal dana ko fayit fay ubbi gi mu ubbi liggéey boobu waaye nag ñu ngi ci teewul mbokk yi yitte jooju ngeen amoon di ci dox di ci sonni di ci soññee lii ab soññe la boo xam ne da leen di jàppale ci soññee boobe kon nag képp ku ko seytaan na xam ne itte la lu yaatu am na lu ci tàmbalee am ki def yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko sëriñ Tuubaa nangul waaye na ci kenn ku nekk bàyyi xel ne kii bu yóbbu kenn lu mu gàtt-gàtt wala tey mbokk faatoo ndakaaru wala mu faatoo Kaolack mu war koo jëli hmm. diggante bi lu gàtt-gàtt danañ ci soxla yeneen yu bare bare bare hmm. te loolu nag hmm. nun taalibe Sëñ Tuubaa yi la war li waraat fat turu boobu ci ñun la war sëñ Babacar nag def na ci waru garam def na ci tàmbali na ko tàmbali bu am solo boo xam ne yéen ñëpp yéen ci teg seen bët muy bii tànnul bu màggat tànnul bu yàqu dafa seet boo xam ne moom mii nga xam ne moo ko doon wut ba mu koy wut jënd na ko ci njëgg ko mate ngir doon ci wéyal ab liggéeyam waaye ba mu xam ne sëriñ Tuubaa xamee ne sëriñ Tuubaa soxla na ko ci barab bi dafa wax ne lépp lu sëriñ Tuubaa soxla man soxlaatuma ko ci sama biiru liggéey sama yitte rek mooy jëppal ko sëriñ Tuubaa ab taali bi nag foofu la war a nekk ci loolu la war a góorgóorlu kon ñun ñëpp nañ delloo siwaat suñu xel te xam ne lépp lu ñuy soxla rek dafa war a nekk ci ginnaaw soxla sëriñ Tuubaa te it fee nag mu jëm ku ne am na fa wàll ku nekk am na fa wàll kenn ku nekk da nga fa jaar say bokk danañu fa jaar hmm. te waxtu wa nga fay jaar wala nga fay jaaral la ñu fay jaarale sa mbokk hmm. da nga soxla lool ku la taxawu ci taxawaay hmm. yëpp kon nag képp ku bëgg say taxawaay di mat dangay ngay jiital ay taxawaay ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu daayirat muqaddamatul xidma di si gërëm mboolem kuréel goo xam ne yaa ngi ci doon yëngu di leen wax ne lii ab soññi la ndax barab yi bari nañ ci dëkk bi te fu ne la ñuy waajalee hmm. di indi ci garab yi hmm. waaye fu ne la ñuy waajalee itam di fa yóbbu hmm. danañ yóbbu daaru salaam danañ yóbbu daarul man naan danañ yóbbu gede ak feneen ak feneen ba ca mbusoo bi ca mbàkk te ñooñu ñëpp fu ci nekk dañ ko war di waajal kon sëñ Ahmadou liggéey baa ngi nii day door a tàmbali waaye na jëm kanam yàlla nañ suñu borom dimbale ñu gën koo man te suñu borom barkeel liggéeyu sëriñ Babacar mii nga xam ne moo def jëf yi ak liggéey képp koo xam ne jàpp nga ci liggéey bi ci barkeb sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu